drapeau bu mag baa ngi noonu ndeysaan diggante Zoss bu kanam ak ki nga mooy Siteu bu góor yam boo xoolee nag ki nga mooy Zoss dafa daan Hercule Hercule moo daan Siteu waaye garab ci kaw lay fekkaate waaye ci lay sutaate ñu xool lii nga xam ne mooy moo gën a xarañ ci wàllu bëre waaye Zos def na lu ne ci mbapat te moo ëpp dayo ba xool léegi nag ci wàllu xeex la ñuy xool Siteu ku ma a xeex la ku ñemee bëre combat bu yàgg la kuma ma moo leen di arbitre arbitre soufflé la arbitre soufflé na ñoom ñaar fausse garde la ak garde normal Siteu wàcc na ci tànkam kon Zos am na Zoss am na problème parce que Zoss bu bëreeg yow dafay bëgg nga sigi xeex moom ci kaw mu daw jël la ci suuf bis bu la jëlee da lay boole am kot lay def wala booleeg maanaam wing loolu ñuy wax wing ay wing wing mooy da lay poc ca kaw tourné ak baraake la ca kaw a kaw dij la laa ilaaha illallaah ñoo ngi ni su ne Assane Ndiaye la. waaye lamb ci nar naa yegg ndax dina yeggam déet ndax ñi nga xam ne ñoo farak euh, Siteu ay nit lañ ñoo xam ne dañ koo bëgg lool bëgguñu mu daanu waaye Zoss tamit tey jii dafa andi euh, mbooloo mu bëri bëri bëri binaaw bi mu daanee Hercule ndax dafa war a bokk ci làmb la wax ndax boobu ba léegi ci diggante bi mënu ci woon a dugg waaye dugg na ci xale yi dàq bëri ci dëkk bi. Siteu mi bokk na ci xale yi dàq bëri ci dëkk bi moo ci dàq bëri sax laay wax man man sama wax duma ko nëbbu de waaw waaw waaye am na gan nag am na gan <laughs> am na gan goo xam ne mu ngi ci dëkk bi lambaajo dëkk bi macha allah ah Siteu taxawaayam baax na fausse moom zos. waaye Siteu garde normal la ay bu ñu dajee ndaw bëri bu gaaw Siteu loo teg da koy teggi ma ngay wane waane waane man loolu bëgguma ko dama bëgg rek ah ki nga xamante ne bii mooy euh, bolis nee na supporters yi jóg leen jóg leen jóg leen bi jeex na waaye jeexagul de. bonus yéexagul ah arbitre bi suula waat na ndeysaan ni ñëpp ñu ngi di xaar seen tit lan mooy xew ci diggante ñaari kàngam yi nga xam ne ku nekk def na li nga war def ci làmb tey Zoss bu génnee ci Siteu dafay bokk ci xale yi nga xamante ni bii dañoo war a génn dem digganteem ak booy Niang digganteem ak doomu mbake digganteem ak digganteem ak digganteem ak ndax doomu mbake moo daan Siteu kon digganteem ak doomu Mbàkke dafay taxaw ak ay moromam digganteem ak Boubou Diaski digganteem ak ki nga xam ne mooy Salim Mané waaye tamit digganteem ak yeneen adversaire yi nga xam ne ñu ngi ci kaw ndeysaan waaye Siteu bu jógee ci victoire bi moom tamit nekk ci dynamique bu baax ndax euh, dafa jóge ci ay tolof tolof war a am taxawaay bu mat sëkk jii bi mu daanoo ba léegi daanul fii ci diwaanu Njaareem mot tax tey gis nga saa saa xewul waaye léegi jikkoom dikk surtout léegi jikkoom dikk parce que jikkoom mooy dafa mën a xeex mën a bare loolu la gëm. yàlla moo def nag rëyul benn rëyaay bi waaye doole la doon la di ngeen jëlaat avertissement di yéen ñii bëre leen dañ leen a fay du ngeen bëre bëre leen waay bëre leen bëre leen waaw Siteu baaraam wu dey ba dugg na Siteu ngay ñëw Siteu ma ngay ñëw ma ngay dikk Siteu boo nee bëreet rek Zoss dina la jël loolu lu ma wér la boo nee bëreet Zoss dina la jël xaw ma noo yegg see nag waaye Siteu bu ngeen xoolee loxoom bi nga xam ne mooy loxo càmmoñ bi nanguwul yéeg ci kaw ba léegi kon bu koy jël tamit bootu na fa fekk loxo ba ay eh waay waay bëri leen gaa yi ñu teg gaa yaa ngi ni teg gaa yaa ngi ni teg ñoom ñaar ci géew fii ñëpp a ngi seetaan ndax su ne Assane Ndiaye bi dana yegg e bu yeggee ñu xam ne Assane Ndiaye mooy mbër ndax gaa yi def nañ ko fi yeggul ñu defaat ko fi yeggul tey moom mu fas yéene koo def nag moom mu ngi koy def moom mu koy def moom ndax dina yëggam déet Zoss effacé na ana Serigne ya Serigne wax demal daan ko te ñëw ana laar ya ana béjjën ya ana cëwri ya ana dàkk ya ana sengoor ya ana ana ana oh ndeysaan tey sama gars yi ne le ay si taa ngi jege si si taa ngi jege waaye seen parrain ba ñibbi na seen parrain ba ñibbi na ah waaw ah waaw oh. Eh, ay arbitre waxaat ak yéen bëri leen te ba combat bi du jeex ci yaw nga ñàkk nga ñàkk ndeysaan oh eh ay ndeysaan ngi noonu Zos ma ngay defaraat ngémbam ci ginnaaw Siteu da ngaa jël ñetti avertisement nag na nga xam ni ñaar doom nga dese ci komba bi loolu moom na ko xam boo demee ba di jël ay risque awaw ah, Siteu situation yaa ngay changé situation yi mu ngay changé ah waaw Zoss a ngi koy tëru Siteu ngi ñëw Zoss mu ngi koy tëru Siteu ngi ñëw jàpp na ko lay lay la jël nga ay coups Zoss yaa ngi jël ay coups Zoss yaa ngi jël ay coups Zoss yaa ngi jël ay coups Zoss ma ngay rokkas maamit Zoss ma ngay rokkas lay lay la ay eh, Zoss Zoss Zoss Zoss a ngay ma ngay rokas ma ngay rokas moom it lay lay la na eh. coup arbi soufflé waat na ndeysaan dellu si waat nañ bi ñu xeexee sos dem ardo wala boog dem ca aari wala boog eh waay ndeysaan Sankharé amoon na gan léegi Zoss daa demoon ci ndax ndax ndax Siteu da nga delluwaat wala doo delluwaat ay boo delluwaatee góosam ngóor sii ay lay projet bi dafa tar waaye nag Siteu koor ba njëkk ba boobaa na ci loo adversaire am sas ndeysaan kenn ku ne doo yàkkamti waat laalante bi ndax laalante bi daa safoon de ak a safoon saf la defoon awaaw ah ña ko ci bëgg a delloo waat gis nga yey eh, la gis maa ngi ma nga ca marinam Siteu nga ca marinam Zoss jël na ko Zoss bañ na Siteu bañ na Zoss jël na ko Zoss eh! daan na Siteu waaw Kourga Zoss daan na Siteu waaw Kourga Zoss daan na Siteu